ba mu koy tàkk mu ni kaani doom baa toxal waa jandeeroo sëñ Tuubaa lay jug jóge na doom jaa ñëw doomu kaani moo toxal waa jandeer moo toxal kan mooy sëñ Mor Janjaar ginnaaw sëriñ Tuubaa sëñ Fallou sàkk ci moom ngir ànd moom ngir tax séefam ak liggéeyam ci yoonu sëñ Tuubaa lan ci tegal sëñ Fallou dane ko dinañu ànd kat waaye da ngay bàyyee Fall gi ndax Seex Fall daal nekk sama xol Fall rek laa yóbbu lan nit ànd bu rafet boobee ñu nekk nekk nañ ko ñoom ñaar maa ngi am sama sëriñ bu baax góor bu baax boo xam daf may ñaanal moo ma ci làmmiñam moom maa ngi koy wax barki démb sëñ Cheikh pour wax la mag ñi ñu baax dama ko laaj gis ni ko Mor Ja xam nga ko mu ni bu ni fa mu ni la damay guddi gis damay damay sax suba di dox ci jaww ji dox ni gis ci jaww ji li féeteeg asamaan lu mel ni ay conteneur di wàcc sama bopp ma téppati mel ni ko dox ci saab damay gis ay conteneur mu mel ni wàcc sama bopp ma tiit ndox téppati ko ci saab koo gi nee na ma ñeenti at dox naa ko taxaw sama bopp te nee na sama baay daal bi baay ñax la ma nee na ci sama baay jaaxle daal bi baay ñax la yàlla dem seeti sëñ moo te njax fii jandee nee bam ba señ ñëwee sëñ Mor ca xool ma dal ni man na ko fac waaye o ma ndigalu faj dal ni dañ koy yóbbu ci na señ bàyyi ñam so soo demee ñaari mbir ci xew ben dina ko fac wala du ko fac dina wax ci koy fac waaye man waru ko fac xoolal wàllu yi ni ñu dara da ngay jëm ci bàyyi ñam to señ suwaat dina ko fac suwaat mu wax la ci koy fac waaye man waru ko fac góor gi nee na sama mbaay jàpp ma comme daal di mbaay yàq la yóbbu ma ci mbaay ñax te al islam tëjoo ko man ñaari fan nee na onze heures quarante lañ saa ci sum nee na mu ñu ko ci xool ba mu yàgg mu daal di muuñ daal di laaj kay ñu jox ko kay moo mbaay ñax bu bind ci leer ñu yóbbu leen ko sëñ Fàmb sëñ Fàmb la ko wax góor gi nee na bi ñu àggee ci sëñ Fàmb wallaay bi ci néeg ko fekk benn kaas carré nee na suuf si dañ koo lay ba nooy bi ma ñëwee sëñ Fall lañcat la yónnee lañcat ñu wuti lañcat nee na mu sama bopp bi wat ko ba mu mu jël ñaari loxom teg ci bopp tif li waa ji ko di na sama bàyyi ko di ko topp na ko bàyyi nee na sëñ Fall tontu ma ko déedéet ko bàyyi da nga na ko daan da koy jaaj rek daal di tif et ba ma tiflee nelaw naa ñaari fan door a yeewu nee na bi ma jugee gisatuma dara may ñaanal sa sama sëriñ kenn ci ñi may jàmm pour wax la moo a nekk loolu ci suñu moor ja njàpp wax la ñoom nag ñi fi ñu nekkoon ak ñi doon bëggante fu ñu gis nga man baa baaxee dañ la koy yéene du ñu par parloo xoolal maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne mooy sëriñu sëñ moor ja njàpp sëriñ Touba dafa jaar kees ci tolloog tribunal bi dajeeg moom ñun la yoon saafonte sëñ Tuubaa di ko war a jàppante yàlla de tafsir njëgën sunu borom nee na koo jullee mu dem àjjana sëñ Tuubaa ko wax tafsir Ahmad Bara Njëgën war nga sant yàlla ndax yow koo jullee mu dem àjjana wax ji ak ci maam Cheikh Rafaal maam Cheikh Rafaal kon ñëw ci kër sëñ tafsir Ahmad Bara Njëgën fekk ko mu ubbi mu ne ko jënd naa juróom-ñaari mètre percale kaay ko jullee ba waaye li sama sang bi wax ku xool teex bi mu ne ko ah nu ma la jullee sa génn boo àdduna mu ne ko sëñ Tuubaa waxul ko génn àdduna di koo jullee rek ah génn naa juróom ñaari mètre cinquante di kat jullee ba waay loolu mooy gëm sa sëriñ naa ñu wax seex mii ci bëccëg ma ne ko Seex Faal ak a naqaree xam mbiram ak a naqaree xam mbiram wóor na ma ni sëñ Mor Jam ku dul maam Seex ma ko ko wóor na ma ni sëñ njagandoo yi ku dul maam Cheikh Rafal ma ko sëriñ wóor na ma ni sëriñ Massamba Ndiaye wax ku dul Cheikh Ibrahima ma ko sëriñ sëñ Ibrahima Thiam Cheikh Ibrahima rek sëriñ Daouda Ngom Cheikh Ibrahima rek sëñ Modou Ndiène Cheikh Ibrahima rek sëriñ Moussa Niang Ngom Cheikh Ibrahima rek sëñ Abdoulaye Yakhine Diop Cheikh Ibrahima rek xam naa ci lu mat ñaar téeméer yoo xam ñëpp ay ay taalibe te ku dul ñooñu rek ku dul ñooñu ñooñu wala gën a yéene te Seex Faal lañu yaakaar maam Seex Faal ku mën a déggam sëñ Tuuba ci njaam biiru sóoboo ci Mbàkke Kajoor fekk na sëñ Tuuba di julli maam Seex Faal war ci kaw fekk na sëriñ Tuuba di julli toll ci ruko maam Seex Faal war ci kaw xool leen sëñ Tuuba ni mu tuutee 37 kilos 500 Seex Faal li mu amee kàttan war ci kaw sëñ Tuuba sëriñ bi di sujjóot rek di sëcceeg moom di sujjóot xamul sax wàcc kaw a sëg ba julli gi jeex ah, maam dafa egg nit ñi fi ñuy xool seex yi la génn dem naan seex fi mu nekk fay sëriñ bu la attanee dalay attan adduna ak àllaaxira mbàkke moo taxoon mu ñëw di xool ndax suñ bamba ah, attan na ma attan na ko 37 kilo 500 mu war ci kawam sëñ Tuubaa di rukkoo moom di sigéeg moom maam Cheikh Rafal fi mu nekk neexu ta xam te bu la yàlla boolee ak moom da ngaa war a dox ci moom jeex ci tànk comme moom ni meloon ci sëriñ ndax kat sëriñ bi tëju na fukki fan ak juróom sëriñ Touba fukki fan ak juróom yoo xam ni kenn gisu ko fukki fan ak juróom kenn gisu ko ba fukki fan yeeg juróom nag nag ñi laaj laaj ñu ni sëñ Touba ubbiwul benn yor yor la sëñ Touba ni tell bunt bi génn nag ñëpp defar seen toogin sëñ Touba ngi yor kafkeer teg ko ci kaw palaat teg ci ay kaas bi ni génnee ne asalaamu aleykum ñu ne wa aleykum salaam mu ne xanaa namoon ngeen ma ñu ne waaw mu ne sant leen yàlla fukki fan yii juróom maa ngi woon barzak sëñ Touba sàllaaw naag yenant bee nekkoon na koy wargaal daal ne sàllaaw sama kaas yi ngeen di gis yenant bi moo ci doon naan xanaa ma abal leen ngeen barkelu ci ñu ne ko mbàkke kon ñu jël mu xelli kaas jox kenn ci ko gën a jige ci mag ñi mu naan kaasam bay bëgg a toj kaas bi ne ko mbacke jërëjëf bi ma naanee ci kaf bu rasulaay don naane li de munu ko amé tan budul dul sa pénc mu xel li jox ko ci sës mu naan kaasam ni alhamdullilah naan na ci kaf bu rasulaay don naane mu xel li jox dex rabbaal mu ne nit kaf ci ci teg ca ne ko jox ko nga xamni mu ngamon ci rasulaay bàyyi la man doy nga ma ab naa ko laaxaraa ma ci moom dara yow la xam xaw ma ko yow la xam yow mi ya xam sëriñ bi ñu la boole faaw nga ndigg ci moom looloo taxoon sëñ bi ko Cheikh Ibra yóbboon ci sëñ Touba sëñ bi ni ko na seet sëñ Mor Dia nekk ci yow tey ñëw fi ma na ni Cheikh Ibra la sëñ Mor Dia nekk ci yow tey ñëw fi ma kon dafa dee waaye kii la ko yàlla boole ci Cheikh Ibra Fall te am na lu kenn amul sëñ Mor Dia xam nga mooy lan moom ñaari titre seex la sëñ Touba da koo seexal seexal par seexal lu ma ko xamul dañ ma war a jàpp njàpp moom ñaari titre seex la seexal ci seex bi doon taal seexal ci sëñ Touba maa ngi gis seex yëpp boo jaay ne da ngay fekk seex ma mën a jàpp seexu sëñ Touba fii la daan fii la daan dàqee jinne ñuy dëkk fii toxal la fi jinne bari dafa jubóo borom mag ñi nag looloo nekkoon ci ñoom kon ci mbokkoo ma waxoon mo wóolu sëñ Moussa Ka mu ñëw mu ne ko woyal ma sëñ Moussa Ruubu Ndar woyal ma ko téere ba rafet da nga jox ko naam na njaay mu mokkal ko ngeen xëy jaale gi yo ngeen jago mag ñi ñoo baax sëñ Moussa Ka la ne ko wayal ma sëñ Issa Ruubu laa mu al mahdi bo boo su ba nga jox ko na ma ñay mu mokkal ko jang ko bi mu waye ba señ mu Moussa Ka woy na ko yomb jox señ mam ma jaay ni ko mokal ko suba la dem yo señ mam ma ni ko mënu ko mokal ci génn ci nag mu ni ko señ Fall loo wax boo koy xool muy mok ci guddi gi la ko mokkal ñetti téeméeri bay te fukk ak ñu xey du suba taxaw ca yo nga dégg sëñ Moussa kanaan yeen gaay yi fii sa ngeen déglu musa mo jaale Isa doomi limamu ñoo dëkke lay lay ñoo sagal bay lay ñoo ñak caay caay kenn du limamu di ko woy woyu rafet ñu koy yëkkati ca kaw ba laayee yi daal te taalibe yi mu di tudd xoolal maam bu kunta li mu xeere ci sëñ Saaliw Fall borom daalu xapoon rakki maam Seex Fall ku rëy bi laa yaa ngi sëñ Saaliw Fall daana faj ay jinne jinne tawax mu fat ko daam taalibe sëñ bu kunta njaasaan bu bëggoon a jox addiya sëñ bu kunta teg ko bitim réew ni sama sëriñ sëñ bukkunta mat na sëriñ te sëriñ bu matee sëriñ loo bëgg ci la la ci daal di wax ni li ma ko war a jox dama koy sànni ci jé yóbbante ko Sénégal li def sama sëriñ koy jëlal boppam sëñ bukkunta bu njàppal su matee li mu doon dina ko jëlal boppam te wóor na ma ni na li mu doon daal di jël addi ji sànni ko ci géej lu mel ni wurus la nag mu yàlla dogal leen di jën jën wu mag wàllu wurus wi teer bii ci Sénégal soxna sëñ Saliou Fall borom Adama Jóob dem na te war a togg ceeb war cee jën ndugg jën jën bi yor wurus wi soxna Astu Jóob toog ci war koo waas sëriñ Saliou Fall génn ci ndé woowu mat ka jël yóbbante jàmbur da cee nekk dama jëndee leen jën ma jox ko yóbbante xam ngeen nit ñi du jaay nit ñu jël jën yi pas ko ba mu dëgër ñu yóbbante ko ñu wax naan Bamba Samb sëñ Bamba Samb moo ko yóbbu Njaasaan mu ne ko boo dee nee man sëñ neel mu ngi ko wan ko teer sama kër bañ ñu lekk ko di jël alalam maa ko def bi ndawam ñëwee maam bàgg bàmb sëñ bu bunta ubbi bunt bi suba teel naan ndawal Saliou Fall ak teegu la ngeen ñi mbat lañ liñ doon ndawul ndawul Saliou Fall ndawam ndax ñëwam ak teegu maam déet ñu dikki ni ko ñëw na mu daal di jël jën wa daal di muuñ daal ni sëñ bàmba sàmb soo demee neel Saliou Fall jinne ji ñu koy jiin gëm naa ko bis ni ki tey da sañ taaliw faal jinne la woon nag rakki maam Cheikh Ibrahima Fall Babul mouride mag ñi lii doxoon seen diggante kenn xeebul kenn ku ne foo mën a baaxe da leen di neex duñu sànni tara duñu wax lu ñaaw duñu yéene kenn safaan dañoo bëggante te yàlla salaamaaleykum am xel nag laay waxee xam naa daanu naa waaye nag xëdëb xëdëb bi mu noo ngi ñaan képp xam ne sëriñ Mor Dia am na ci moom ak cër ñu fekk fii sama gan gii di sëriñ Abdoulaye Diop Bichri ñu teralal ma ko ndax kenn ku xam na ne li mu wax kàddu bu daanu ci xol lay tàbbi ma bëgg nag nit a ñu woote jàngoote ñàkk xëy na nit ki benn fukki junni te moom laa bëgg ñu dajalee